aawuzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy bàyyi xel ci site internet bi di 24 actu yi fi ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal ci topp gi ngeen ñuy topp ci waxi sëriñ Touba yi comme niñ ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk tey nag ñu dikkal leen ci net lépp soxna Faty ja ci bi ñuy sanc Touba radiyallahu taala anha atum wasasin 1306 dafa jóge daaru salaam dikk bi muy dikk ànd na ku ñuy wax sëriñ moor xafsaloo ak sëriñ buubu ja ak sëriñ moor golbe ak sëriñ ibrahima jéey ak sëriñ omar soose ak sëriñ masamba kandi buso ak sëriñ ibrahima buso ak sëriñ mayaasin ummi jeng ak sëriñ mbàkke ramata ak sëriñ abdourahman loo ñii la àndal léemu si Touba booba ku tedd ki la doon waxal xaadimu rasul nee na foofee jumaa ji nekk guddi keroog la fa njëkk fanaan booba nag am na guy gu nekkoon fii kër sëriñ Fallou nekk mu léemu ko fii barabu sëriñ bi nekk tey ak bépp maanaam ak garab la gu tudd noonu nee na moo fa nekkoon fi la sëriñ Touba xaadalahulaahu maxtaar lahu fanaan ak sëriñ Mor Hafsa Lo ak sëriñ Abdourahman Lo radiyallahu taala anhuma ña ca des mu yebal leen fa guy googee nga xam ne gaynde yi dañu leen di wër ba asamaan set bi ñu xëyee sëriñ bi wax sëriñ Abdourahman Lo wutal ma sawara wu tàngal sama satala gi ba mu nugg mu jug wuti ko daal di jëm saw sëriñ bi fettesu ko mu daal di jëm penku mu dox tuuti yam ci ay pël yuy ratt meew mu ñaan leen sawara ñu daal koy may ba mu dellusee ba ñu julli fajar ba sërmal nis tuut pël yooyee jaar fa may leen soow ma ñu doon ratt sëriñ Tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahu ne leen man ngeen koo jëfandikoo ba ñu noppee sëriñ bi ree ne leen li ngeen di jëfandikoo ci pël yi am ngeen ci kumpa pël yi kat ay njëggal lañu njëggal mooy koo xam ne danga reer ba regg soq sa fetal ba mu baax di wër ci guddi gi koo dajeel rey ko jël alalam mooy li ñuy wax addu kalpe jamono jii fi mu ne pël yi dañoo rey woon nit jël seeni alal nag yooyu dañu ko jële ci ay nit waaye li ñuy jël jël alali jàmbur fanaan gii ñu fanaan fii ci ñun ba ba ñuy faatoog seen nag yi ba ba ñuy raaf lu laal ci ñoom araam na sawara ndax guddi gii ñu bokk fanaan ak ñun fii ahlu badrin di leen wër ba asamaan set ba yoor yoor jotee nag ba nga xam ne ña fanaanoon ca guy ga dikk nañu sëriñ bi nee na dama ne leen dama leen a bëgg a xamal ñeenti buum yi jëm ci sunu borom subhaanahu wa taala toog leen ab diir te ànd akuk dal buum yooyee mooy xam yàlla ak ragal yàlla ak jaamu yàlla ak àgg ci yàlla xam yàlla moo di xam li muy digle ak li muy tere ragal yàlla moo di ragal li muy tere ragal a def li muy tere te sax ci li muy digle jaamu yàlla sax ci li muy digle ba fàtte li muy tere mooy laa taqaf na jawta àgg ci yàlla mooy sax ci li muy digle bàyyi li muy tere ba say cër fàtte ko foofu mooy waatul buyuuta min abwaabiha ku ci yegg dugal nañu la ci néeg bi nga xam ne ku ca duggati dafa jaare ca bunt ba bu la dof yi séenee ak teraanga ji ak mucc gi ci lépp luy lore da wutsi la ñu ne leen waatul buyuuta min abwaabiha néeg bi daa am buntu jaarale leen ca buntu ba loolu la leen sëriñ Touba dénk jamono jooja soxna si nag radiyallahu taala anha soxna Fatija nee na lii la leen njëkk a digal ci Touba sanc bi nag nee na booba am na juróom-benni weer yoo xam ne weer wu nekk ñu mbaar menn mbaar ba muy juróom-benni mbaar ci biir juróom-benni weer yooyu sëriñ Touba xaada lahu laahu maxtaara lahu dane bu ñu fi wale maanaam bu ñu fi dëbb bu ñu fi dëbbee tamit ak kuur lu ñu fiy jëfandikoo nañu koy dëbbee daaru salaam dama fay def léemaay loo xam ne day bañ dëbb feek juróom benn weer kon mbokk yi fii lañu yem ak yéen di leen jox dig daje ci beneen yoon ci waxi sëriñ Tuubaa yi di leen wax ne bu leen fàtte ne di abonné ci suñu site internet bi di 24actu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu